hor ca baye mom ca doom li gis mu daan jëf jox nañ ngir ngeen mën di jot xew-xew yi nga day xew ci El Omar Ndaw ngeen mën di ko am direct ci YouTube bi da ngeen di abonné ci seen bi di TVKBN te bu leen fàttee kolos bi te di aimé vidéo yi te di ko kaw la mu ne fee mu nekk ci kaw la ak fii nga nekk ci Daaru Salaam. ak fii nga nekk ci Daaru Salaam. toogaay bi benn toogaay la. mu ne toogaay bi benn toogaay la. ndax xam na ne. ndax xam na ne. bi nga toogee wuutu. bi nga toogee wuutu. wali yàlla bu màgg ma. wali yàlla bu màgg ma. suñu bàyyi sëriñ Muntaxa. suñu suñu bàyyi sëriñ Muntaxa. yaa ngi liggéey ci diina. yaa ngi liggéey ci diina. yaa ngi liggéey ci tariqa. yaa ngi liggéey ci tariqa. ngir yàlla. ngir yàlla. ak yenentu. ak yenentu bi sallallahu alayhi wa waxee rek. mu ne saa boo waxee. lislaam lislaam dina am ndam dina am ndam dina yëg timit dina yëg timit yi nga xam ne yëkkati nga ko yi nga xam ne yëkkati nga ko lislaam dina ci gis boppam li nga xam ne dina li nga xam ne moo tax tey naa yàlla mu ñëw fi moo tax ginnaaw yàlla sëriñ bi jaar fi yàgg na koo waaj. yàgg naa waaj lu mel nii. yàgg na la dégg ci mbaax. yàgg na laa dégg it ci mbaax. ak sa Pastef. ak ca Pastef. ni ngay dimbalee Saalum. ni ngay dimbalee waa Saalum. Euh, ki nga xam ne mooy Balaaj Ibrahima. xalifa ki nga xam ne mooy Balaaj Ibrahima Niass xalifa radiyallahu anhu. te mu wuutu ko ci toogaay bi. te sëriñ bi wuutu ko ci toogaay bi. keroog ba mu fii ñëw. keroog bi nga xamee ne mu ngi ñëw fii. man a moom ñoo àndoon. mu ne moom ak Alaaj Saalum Niass ñu ñoo àndoon. mu jaaree si la. mu jaale si la. sa mag ja ca mag ja. Serigne Mountakha Serigne Mountakha Mbacké. moom itamit ndaw moom itamit mu ne. ndaw moom itamit. mu sëñ bi itam wax de. mu ñëw fii ci tund yi. mu ñëw fii ci tund yi. du ñibbi mukk. du ñibbi mukk. te ñëw ci yow. te ñëw ci yow. fasante ak yow kóllëre. faslante ak yow kóllëre. te wane ne. te wane ne. ñaari kër yi benn ñaari kër yi du ñaar waaye benn la. Euh, ndax sa baay. ndax sa baay ji radiyallahu anhu. sunu maam. sunu maam radiyallahu sunu sëriñ. suñu sëriñ. sunu yaakaaru àdduna ak alaaxira. sunu yaakaar tey ak muy Faaruq. muy Faaruq. sëriñ alxaaji omar ndaw sëriñ alxaaji omar ndaw keroog nga xamee ne keroog bi nga xamee ne suñu maam xalifa ñas suñu maam xalifa ñas radiallahu anhu wàcc na liggéey wàcc na liggéey sa baay sa baay ja moo joxe ndigal moo joxe ndigal ci saalum ci saalum ne war fas ne nañ war fas tàggee jëmm jooju tàggee jëmm jooju di maam xalifa di maam xalifa ne képp ku fekkee robam ba ne képp ku fekkee robam ba sa yaram araam na safoo sa yaram araam na safoo lii nag mu ne lii nag dégg na ko sëriñ bi dégg na ko looloo tax tey looloo tax tey mu ñëw mu ñëw sonn na lool sonn na lool waaye dañuy wax ne waaye dañuy wax ne otoraay otoraay lu mu xat-xat lu mu xat-xat nuyul ma sama yaay xaj na nuyul ma sama yaay xaj na seen ñaari toogaay yii mu ne seen ñaari toogaay yii ma nekk seen diggante moom mu ne seen diggante woon kàddu ci kàddu. waaye dafa fekk ne. waaye dafa fekk ne. Euh, buntu bu nekk rek. buntu bu ne. am na kuy caabi jël. am na ku yor caabi jël. lii moo doon kàddu gi. mu ne lii daal moo doon kàddu gi. maa ngi koy jégalu ci yow. sëriñ bi ne mu ngi koy jégalu ci yow. di ko jégalu tamit ci sëriñ bi. di ko jégalu itam ci sëriñ bi. lii moo doon kàddu gi. lii moo doon kàddu gi ay Saloum Niass. gannaaw ba mu sant yàlla ci boppam. muy julli ci yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ngi sant Seydina Cheikh Sëriñ radiyallahu anhu mu ne mu ngi sant maamam El Hadj Abdoulaye Niass. sant xalifatul Haaji Mouhamad Niass. comme ni ko El Ahmad Saloum waxee. mu ne noonu rek la. mu ne jarul tegaat leneen. mu ne day dëggal waxam rek. mu ne ñëw na fi nag. waaw a Ba ngi dund. booba sëriñ bi si boppam mu ngi dund. yàgg na. yàgg na. booba a yi beeñ la. booba yoon yi daal beeñ la. ba mu ñëwee ba wàcc ñoora. ba mu ñëwee ba wàcc na ñoora. keroog diggante bi dama ko dox la fii. keroog moom sëriñ bii diggante bi dafa dox. waxtu takkusaan laa a mu ne waxtu takkusaan la yegg. mu fekk ko néegam. mu fekk ko néegam. mu ngi toog. mu ngi toog. téye kurusam. ba mu ñëwee sëriñ bi ne ko yow kuy mu ne ko kan mooy sa wayjur. mu ne ko Khalifa Niass léegi mooy mu ne ko mooy Khalifatul Haaji Mouhamad mooy sama mu ne ma. mu ko. bul waxati waxi nasaraan. mu am na koo xam ne boo demee bul juum wax ko tubaab. mu mu ne ko Khalifa mu mooy sama mu ne keroog fa fanaan fii la fanaan yoor yoor la ko oolu mu ñëw mu yëkkati li ma jox jox jox ko ma ne ko ma fi mu ne ko lii de indiwul ma fi man ku ma ñaanal yàlla rek laa bëgg mu ne ko waaw mu jël la xam ne moom la ko naroon a jox dugal ko ci poosam bi mu ne jëlal nga def barkeelu ak barkoolu kon mm-hmm. nag mu ne kon nag. gëj naa fi lool. ne gëj na fi lool. waaye mu ne waaye nag. montoor yu baax yëpp. montoor yu baax yëpp. ñoo bokk heure. mu ne li nga xam ne yàlla dogal na nga nekk xalifaam toog fii di ko liggéey si réew mi. mun ne loolu moom sëriñ bi jot na fi te umpul kenn. mu ne te alhamdulilah rek leen wax sant yàlla. di ne mu lay ñaanal yàlla. fan woo xam ne day gudd lool amin ak wér gi yaram amin yow ak njaboot gi yëpp ak mboolem taalibe yi mu ne ñoom ñëpp yàlla boole leen defal leen fan wu gudd ak wér gi yaram mu ne mu ngi ànd ak njabootam mu ne alaaj ahmad saalum mii di doon wax ak yow ak mii di wax ak yow ak kii tey mi nga xam ne moo yore daara sëriñ bi di Moustapha Wilane. maa ngi ànd ak eh, soxna. mu ngi ànd ak soxnaam soxna Mariama. mu ngi ànd ak say bu jigéen ma nga ne de toog. muy soxna Aysa. mu ngi ànd ak doomu alaaji Ibrahima Mara ci barab bi mu ne ci barab bu tedd bi mu ne barab bu wàllu yàlla ku fa daagu man ngaa wax ne sama bàkkaar yàlla fóotal la ma ko mu ne yëf mu ne lii daal mooy wax ji nga xam ne Saalum jiital na ko. moo waral yoon wi tim mu ne fan yi daal la bàyyam xalifatul Haaji Mouhamad Niass ne woon muy nemmeeku taalib yi fekk ci leen ci jamono buy jafe ci buntub nawet mu ñëw fekk ci leen ñaari fan yëmmu ci taalib yi. mu ne lu mu sonn sonn nag dana fi jaar mu ne lii mooy tànk yi mu ngi lay nuyu. waaleykum salaam mu mu lay nuyu moog ay rakkam. mu ne dafa xaw a xat mu ne te timis jot moo tax woowul leen sax waaye ki nga xam ne moo ci mag mu ne ki ci mag di sañ Habib kër a ngi nii bëgg na nga gis ko mu ne ndax dafa amoon ay jafe-jafe ci gannaaw ñaari soxnaam yu génn jamono ci benn weer ci benn weer mu ne comme yàlla dogal na nga ñëw ba ci dëkk bi. te ñoom ñoo sëyee kër. ñu bokk ndey ak baay. mu topp si moom. mu ne moom sax kàddu moo ko xamee. mu ne bëgg na nga gis ko. bala ngaay dem. mu ne nag kontaan na. mu ne kontaan na ndax lii. mu ne xam na lu mu do ci moom. ndax moom demut fenn. maa ngi gëj Kaolack. ndax mu ngi gëj Kaolack. ah ñaari at. ñaari at. yu mat sëkk yu xam ne taxawu ma Kaolack. yoo xam ren sax. mu ne ren sax dikk na fa. sëñ bi sëñ Abdou Salam Gueye gaañoo. pont bi. ba ca ba ci pont bi. waaye lu waaye ci dëkk bi na lañ dañ tourné noonu rek continué. mu ne buy dem fenn. ko demul fenn la. mu ku demul fenn. ku ko seeti ku ko seeti. yaa ko gën yow yaa ko gën. su dikkut fi da nga ne dikkut kon jarul ma dafa dem. kon mu ne kon doo fi dikki. waaye El Hadj Ibrahima. moom daana dikk fi ñoom. dikk na fi miraaran bi sëñ Muntaxa gaañoo it dikk na jaale si ko bi muy defee jumaa ji dikk na ba si dëkk bi ne du ko yónni kenn maa ñëw fi waxal na ko sama bopp bëgg naa it nga génnee alal joo xam ne sa alal la def ko ci mu ne loolu defoon na ko man lii la ko Moustapha Baye Habib la ko joxoon sëñ Habib moo ko yóbbu woon te loolu yëpp. mu ne te loolu yëpp. am bëggeel la mu ne loolu yëpp cofeel la am bëggeel la. ñi nga ne ñoo ñoo ñoo seen kii mag mu ne mag ñi xam ne ñoo fi newoon. ñoom ñëpp ñoom ñëpp. naa yow la mu ne yow na xamutoon. waaye tey xam naa waaye mu ne xam na la tey de. mu ne yow yaa tax mu xam. ndax El Hadj Ibrahima. moom na fi ay yoon. dikki na fi yàlla dogal na. doon na jàngal. waa kër gi am na si ñoo xam ne jaar nañ ci moom di jàng jàngal na leen sëñ Habib mi muy wax jaar na ci moom a a alaaji Omar alaaji Murtada ak alaaji Muntaxa yëpp jaar nañ ci moom alaaji Omar moom xamoon na ko bu baax a baax a baax bu baax bu baax ko dem nawoo ko lool. te nawloo ko lool. yéen nag bu ne yéen nag. bu fekkee tariqa tijaan la ñuy wax. bu nee tariqa tijaan la ñuy wax. ci Sénégal ci senegal la ne. fu mu war fu ñu waroon a waxee tariqa dëgg-dëgg. fu ñu waroon a waxee tariqa tijaan dëgg-dëgg. seen kër la seen kër la. ni ngeen jàppee tariqa tijaan bi. ni ngeen jàppee tariqa tijaan bi. ak ni ko nit ñi jàppee bokkul. ak ni ko nit ñi jàppee bokkul. yéen tariqa tijaan ngeen amee. yéen tariqa tijaan ngeen amee. raxul raxul. dara dara dara. tijaan kese. ngeen amee loolu ñëpp nangul nañ leen. ku leen ko nangul. dafa nangul rek ci dëgg. mu moom xam na loolu. te toujours dafay wax ne. su leen neexee. su leen neexee. da ngeen man ci salaatul faatihi. ñeseen rek ñoo ko mën. ñeseen la wax nag. <laughs> lew na ñeseel. liñ mën ci salaatul faati. kër Tijaan si boo ci demee. doo ko fekk ku ko mën. te bëgg Seexu Tijaan. te bëgg Seexu Tijaan kese la. mu ne yéen Seexu Tijaan ngeen la wax. Seexu Seexu. Tijaan Seexu Tijaan. ñu bëri Seexu Tijaan la ñuy wax. mu ne Seexu Tijaan ngeen la wax. alaaji Babacar. mu ne ñun Cheikhou Tidiane la yow. mu ne ñun de la ñuy wax. mu ne seen maam. maam. maama alaaji moom loolu la daan wax. mu ne baayam moom fa daan wax ne. ci réew mi fii. amul ku muy xool. lenn lislaam seex naa Cheikh naa Tidiane. leneen yoonam ñëw ci. demut fenn. ku ko wooy ci loo xam ne ci loo xam ne bu dugg dugg na su duggee dugg su sa dara sikk du ca dugg fuutal na ma gën a. mu ne tariqa moo ko gënal lépp. li ma muccee da koy mucceel ëllëg. du ko xemal loo xam ne tey la. moo tax. mën naa wax yow. mën naa wax ak yow. ak ku mel ni yow. ak ku mu ne fii ñu toog. kër Seexu Tijaan la. kër Seexu Tijaan la. mu ko defaree ba mu mat. nangu ma kenn dugg fi. kenn nangu kenn dugg fi. kenn du fi dugg. kenn du fi dugg. ku dul Seexu Seex Tijaan yi. ñoom ñi jógee Dakar noonu di fi ñëw. ku fi dikk nag yaa fi fanaan bu dee geneen gan bu dee geneen gan ci néeg yeneen la leen yóbbu waaye ñoom ñoo tax mu def fi néeg yi mm-hmm. ak saal bi moom buñ fi dikkee rek fii rek la ñuy ne ba ba ñuy demee mu ne te kër Seexu Tijaan la wax ah, mm-hmm. mu ne sant na kontaan na xolam mi sedd na bu baax mu ne saa alaaj Saalum mi moom xam na ko yàgg na lool mm-hmm. xam na ko bu baax a baax a baax. ñu bëri ci njaboot gi. am na si ñu xam lool sax lool. Seydou Lamine yan na yàlla baal ko. wax na xamoon na ko bu baax. nga ne fa ngay ñaan. ki nga taxaw ci buntu këram da yalwaan. ki nga taxaw ci buntu këram da yalwaan. mu tëj buntu bi mu tëj buntu bi. nga taxaw ne faa yalwaan. nga taxaw ne faa da yalwaan. mu ne boo ne laara bi laara. mu ne du la dégg. suuf danaa wuyu bunt bi dugg ci biir mu ne ñun li ñu doon def samedi ju jot dañu xëy dem ci jumaa ja jàng ñetti kaamil benn bi benn bi addiyaay yonent bi sallallahu alayhi benn bi ñu def ko addiyaay seen baay benn bi ñu yéene ko njaboot gi yëpp ñaan tasaaroo ñu dem fële naan nangam la ñuy def. ñu ne mu ne ñoom duñ dem fële naan nangam la def de. masuñ koy def waaye loolu ñàkk ñaan nag. mu ne xalaatuñ ko sax. samedi samedi samedi lañ mujjee dajee ñaan. bi ñu faa si faa yi tamit. waaye tëjal jàkk ji. mu ne waaye tëjal jàkk ji. ba si julli. bàyyi waxtu julli mbooloo mi buñ dajee nangam. xam nga. mu ne loolu du xalaat mu ne loolu moom kenn xamul lan la diine yi mën koo dégg laykat yi ñu ngi lay. mu ne laykat yi nag ñu ngi lay. naan nangam nangam. wala taxalu ko bi ay ah, di ku la taxalu kat. waaye dañ ci jàkk julli taxul ñu mu ne ñii lay. dañoo war a xam ñuy lay lan la. man de naroon naa mu ne moom de xaam na ci. boo déggee boo déggee na lool. waaw doon na ci lool lool lool lool. ko wax. mu ne Moustapha moo ko ko wax. mu ne ko waaw kañ. mu ne ko kooku moo xam li mu dox. li fal. mu ne li la fal. a a mu ne manifeste kat yi noonu la ñuy def. li nga defal nga a may nga ko yàqal. liñ la far li la far nga bëgg la koo yàq nga bëgg la la ko yàqal. diine l'islam fan la. ñu la koo yàqal. nga ne duñ ma ko yàqal pexe la. te yëpp ay pexe la. yëpp ay pexe la. macha allah mu ne gërëm nañ sant nañ bu baax a baax a baax. mu ne mu ngi lay téye nga ñaanal ko. يا سيدنا من وارث نبي ملجانا يا قطب يا قوس يا كيف الأنام معا فلتسقين عبدك خليل مولانا يا حب سيدنا تابعوا أبدا فدول عبدا جه لن صار حيرانا يا كاتب الكرب فلتكتب له القربا man naa beneen kontaan jël ko bi nee kontaan bi mu kontaanoon dooli na ci beneen kontaan. li nga wax mu ne li nga wax léegi ci diine ji. ak keroog jumaa yi. ak keroog ba muy fupp ma mii di ubbi jumaa yi. nga ne yow sax keroog fippu nga. nga ne yow sax keroog fippu nga. baay noonu la meloon. mu ne sa baay radiyallahu anhu noonu la meloon ci diina. bañkat la woon. la woon. te xamoon na teg tànkam. te xamoon na it fi muy teg tànkam. waaw te man damay mu ne moom day faral di wax ne. lu dul diine. moom ñoru ko. diine rek moo rek moo ko ñor. Ah, li nga ne it feebar bi pexe la. lu tubaab yi lal lu tubaab yi lal la te moom itam xam na ko. ngir naxasal lislaam ngir defuñ ko dara lu naxasal lislaam rek. te lislaam te lislaam tëral nañ ko. tëral nañ ko. yeew ko. yeew ko. a joxe ay dog. wala ñuy jàngi kaawin. waaye bu leen julli ci jàkka. jàkka ji. bu leen julli ci jumaa. bu kenn jox moroomam loxo. loxo. pas a. ne loolu daal pas-pas yi lañ bëggoon a nax rek. man loolu laa seet. loolu la seet. Ah, ba muy dem police it loolu la ko yóbbu mu ne ba muy dem police it mu ngi fees dell. dem na ba ba ñëw. dem na ba ñëw it. xaw ma sax beneen beneen beneen raar daal booba jéggi na dayoo. lislaam yëpp laa xeexal. moo ne ba mu koy rafet nag lislaam rek la doon xeexal ñëpp. waaye keroog bañ jullee. waaye bañ jullee. laa duna yëpp julli. mu ne booba laa duna yëpp julli. ah siyaara bi ñëw. siyaara bi it ñëw. te siyaara. te siyaara. بغونا جو دوغي تام حلاقه بي دوخ سي ديغنت طالب اك سيرين زياره فكون جالون نا امول مون زياره بو فكون نا جالون نا امول مون زياره دوخ دوخ سي بوبا زياره يم مانن فات جاري نخساي يالا ديف نا ديف يالا ديف تام الحمد لله كي لا تينكي ييب مون نا دانكا سي لا ليب تينكي تيمير yàlla loolu téeméeri at. alaaji Abdou Aziz. maam alaaji Abdou Aziz. soo maag alaaji mu ndaw. ba alaaji mu ndaw di taawu maam Khalifa radiyallahu anhum. ba mu ko jaalisee. ba mu ko jaalisee. alaaji Ibrahima ne ko. ba alaaji Ibrahima ne ko. bay Abdou Aziz. bay Abdou Aziz. mu ne ko ñas. mu ne ko ñas. mu ne ko yàlla nga dund téeméeri at. mu ne ko yàlla nga dund téeméeri at. amiin. bay Abdou Aziz ne amiin. benn na ko téeméer xam ne bu jeexee nga dundaal téeméer. mu ne ko yooyu bu jeexee nga dundaal yeneen téeméer. amiin Baye Abdou na amiin. mu ne ko yooyu bu jeexee nga dundaal beneen téeméer. mu ne ko yooyu bu jeexee nga dund beneen téeméer. ñëpp rek. ñëpp rek. Abdou Aziz ne déet bu leen rek Abdou Aziz ne déet bu leen rek. mu ne feeg mi ngi ñaan. feeg mu ngi ñaan rek. maanaam amiin la maanaam amiin la. waaye yow itam sëriñ bi naan. yal na yàlla may la téeméer yaat. sëñ bi loolu yàlla nga dund téeméer benn ordonnance. yoo àndut benn ordonnance. ku la gis rek te ku la gis rek. yaramam araam safara. yaramam araam safara. ku namoon a dee tey sax. ku namoon sax. ku rek. bu jàkkaarloo yow rek. yàlla defal ko prolongation. yàlla na ko yàlla defal prolongation. amiin naa. sëñ bi ne bég na lool. kontaan na kontaan eh, mu ne. way wi sama maam way Cheikh Tidiane Mouhamad way mu doon yëkkati nii mu ne maam Alaaji Abdoulaye Niass loolu ko way Seydina Cheikh xol bee fees xol bee fees moo tax yeggalewu ko ak jàkkaarloo ak jàkkaarloo gi mu jàkkaarloo mbégte moom moo tax kon nag kon nag tey la lan mu suba la aljuma suba la aljuma ku la safara incha allah du dem safara loolu moom ci laa xam loolu moom man doomam laa kii doomam laa mu ne kii doomam mooy doomam la baax Baara Ñamal ne seen kan nag moo doon jàngee ca moom. am na ko doon jàng ci moom ci doomu. sëñ Habib loolu la. ci doomu sëñ Murtala waaw. sëñ Baytala Baytala sëñ Murtala. waaw sëñ Murtala jàngee na si Baytala. li gis mu daan jëfoo jox nañ ko sëñ Basiru ndaw te doy na waa daaroo ngir ngeen mën di jot mboolem xew-xew yi nga xam ne day xew fii ci Daaru Salaam El Omar Ndaw ngeen mën di ko am direct ci YouTube bi da ngeen di abonné ci seen seen bi di tvkbn te bu leen fàttee bés kolos bi te di aimé vidéo yi te di ko partagé